en fait xam nga. Mhm. Euh, soo ñëwee ci ci ci bu ngi jiite institution il faut des innovations. Mhm. donc euh, moom son slogan c'est il faut faire jouer tout le monde cest il faut que le football se joue un peu partout à travers le monde. Mhm. il faut aussi que les petites équipes puissent participer à des fêtes euh, du football mondial ou bien même du football continental d'abord après mu ne du football mondial c'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité à augmenter le et pour man sur sur le timing mais aussi sur la planification pour man y' am amul problème quoi parce que en fait équipe bu ko mérité wul doole dans tous les cas. Mm-hmm. et puis les défauts qu'il y avait un peu si je rappelle un peu la non qualification de la Côte d'Ivoire a posé un débat du genre euh, parce que soo xoolee Côte d'Ivoire équipe bu ñu amoon euh, avant mondial bi passé ni pour man c'est une équipe qui méritait d'aller en Coupe donc problème bi ñu amoon mooy la nombre de participants moo taxoon xëy na équipe bu mel ni Côte d'Ivoire demul équipe bu mel ni mm-hmm. de place te pour mu am il faut que ñu xoolaat ko c' est la raison pour laquelle aujourd'hui euh, xëy na ñu réfléchir ci schéma boobu noonu pour euh, mettre en évidence toutes les 54 nations ñu mën a dem en compétition pour ñu mën ci génne neuf mais dans tous les cas ce sera un mérite maintenant mhm. xëy na lu ci ñenn ñenn ñi di wax mën na gis benn équipe bu ndaw bu fakkastalu mhm. ba qualifié mais gëm naa li ma gis nii fakkastalu bi ci am quoi ku ci dem rek xëy na <laughs>